Babacar macha allah say sa bi rafet. non maa ngi lay bëggee Wassare maa ngi lay bëggee kilifa gi jiili di nuyu Basir mi ci caméra bi waaw moom maa ngi koy ziar borom borom baax la jàmbaar la et puis liggéeykat la quoi maa ngi koy nuyu bu baax Basir. gis naa Mbaye Diouf numéro un ci ga gis naa Wuli deux waaye gis naa ki nga xamante ne mooy Mbaye Guy gi yanu na leket wala boog ndaa yanu na ndaa la ma ngay dem. Eumeu Sène nuyu naa. kon général naa ci loo nekk lépp jàmm. ñu gis la tey nga am lamb ju mag nooy waajee bés bi. waaw prévoir nañ comme ni ñu ko doon defee suñu combat yëpp ñaan yàlla may ñu dem incha allah. est ce que xam nga ne ki nga béy lu mu fiy jógee defet la fi jëlee. waaw waaw yàlla na ko jëlwaat tey rek incha allah. yàlla na ko jëlwaat yaa ngi bu baax. bu baax a baax incha allah fi mu toll nii forme bi fu mu toll état de forme. waaw par nañ lépp comme ni ñu ko waxee par nañ lépp xam nga yor nañ état bu mucc ayib yàlla nañ yor may ndam incha allah. incha allah jaajëf. kontaan naa ci yow. Mbaye Gouye Gui maa ngi lay nuyu. maa lay fay doom day. tey ngeen indi seen champion seen lépp muy Bour Sine bu bawal ban yëg-yëg nga am ci làmb ji tey. waaw ndam yëg ndam rek yàlla may ko ndam. parce que nga ma liggéey na lu woor peeg yàlla na ko yàlla defal ndam. point xam nga ki muy bëree Eumeu Sène Junior. Eumeu Sène Junior xam nañ ko kay mbër la ko mbëri rek. waaw di ñaan yàlla may ko ndam rek kese du dara pataas la. xeex la wala bëri. lépp a mën am lépp san départ rek. Bour Sine maa lay nuyu. siyaar bu wér. ñu waaj ay weer tey bañ na yegg nañ ci bis bi ban yëg-yëg nga am. sant yàlla rek bu wér sant maa naas nice maa ngi baax. lamb ji tey ñu ci bari xamee nañu Bour Sine daa bëgg xeex da ngay xeex wala da ngay lu mu laaj rek ma def ko. Eumeu Sène du teggi tànk dellu la ginnaaw. Ah. mbokk yi Bour Sine bu Bawol Alioune Seye bu Junior Alioune Seye ay waay billaay Bour bu Bawol ak ah, ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène Junior Eumeu Sène Junior ngeen jàkkaar lool lamb ji sànq li ci xew ñaaw na mbokk yi dimanche 9 février 2020 arène nationale Xaadim Samb moo fi woo suñu papa ji ndeysaan dox ci diggante Bour bu Bawol ak Eumeu Sène Junior Bour moo leen woon ginnaaw ngemboo ngemb lu xonq li am lu jaune am lu ñuul takk morceau bu weex ci bopp ba Eumeu Sène ngeen jàkkaar lool moo takk morso bu weex moom it ci bopp ba ngemboo ngemb lu vert ñu ngay doxante ndànk ndànk Eumeu Sène Bour Sine day xeex combat bi passé xeex bu métti la xeex diggante ak Mama Lamine day xeex Eumeu Sène cokkaas na Bour Sine fayu na Eumeu Sène na Bour Sine ci bët cey làmb dóoraan oh làmb ngoog ay waay bu leen ñu yàqal lii moom la ñu am door na bursin door na bursin cokkaas na léegi bursin dafa mel ni dafa gën a bëgg a xeex ama seen la bëgg mu wuyu ko ci xeex mu daw jël tànk ba bursin sànni na tuuse na ko bursin tuuse tuuse na ko na ko ña ngay lewaatoo Buur Siin Eumeu Sène Junior ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la Eumeu Sène Junior tànk càmmoñ la jiital Buur Siin tànk càmmoñ xeex nañ sànni na léegi <laughs> sànni na fay na Eumeu Sène na daw na jëli ko Buur Siin bañ na bëgg Eumeu Sène Junior Bour waaj am na ku bëgg a dem kan boo demee mbaa dina baax Bour Sine sànniwaat na Eumeu Sène fayu na xeex door na ko jël na tànk ba la ma diis na dina jugom deet jàpp na ngemb la jàppante ne Eumeu Sène tëru na ko sol na ko Bour Sine dengeñ na Bour Sine Eumeu Eumeu Sène lu mu nar Bour lu mu bëgg door na percute coup bi dal na xeexaan nañ Eumeu xeex ña xeex door na ko Eumeu Sène Bour Sine dañuy xeex xeex nañ xeex nañ daw taje ci tànk hee làmb ji garaaw na làmb ja xeex na ay waay lu ñu metti woon ci làmb jee ñu ñu koy waaj a fay ay waay bàyyi leen ñu làmb mu xew làmb moom la bëgg moom la bëgg moom la ñu safoo moom la ñu tippoo ay waay ñaari xale yaa nga ca làmb ja Eumeu Sène Junior Bour bu Bawal oh Eumeu Sène Junior Bour bu Bawal jàppante nañ ñoom ñaar ku ci nekk jox na lu am joxe na ko arbitre bi moom gis ngeen li ma leen doon wax moom bëre a ko soxal dóorante leen nag dañoo sonn nag mbëri joxe nañ ba sonn arbitre bi loonam newu ci arbitre li koy teel ama seen buux ne ko génn nañ saako yi ñëwaat nañ ci diggi géew bi ama si arbitre bi siflewaat na ama seen siñoor ak buur siin Bour Sine bu Bawol Eumeu Sène Junior Père Mor Fadam gis naa ñoom guy gi Bour Sine gis naa Mbaye Diouf ndeysaan dafa leer gis naa mbay guy gi door na door na mbaa door mu daanu du am ña ngay xeex jàpp na ko tànk ba la jëm da mu ngi xeex nañ dooraat na Bour Sine Eumeu Sène xeex Bour a ngay fayu Eumeu Sène nga dox ci koom lu mu bëgg Eumeu Sène ak Bour Sine taxaw na Eumeu Sène taxaw na Bour Sine da koo bëgg a vidé da koo bëgg ba mu jeex combat bi bu yàggee avantage Bour Sine la Eumeu Sène combat bu gaaw moo ndax poids ba xeex na Eumeu seen dóor na Bour fayu na ña ngay xeex ñoom ñaar Bour Sine Eumeu Sène senior Bour Sine Eumeu Sène Junior. Bour Sine Eumeu Sène Junior. fayu na. Bour Sine wala déet li ma la doon wax ci da koo sonal. combat bi bu yàggee du ko arrangé dóor boobu dal na dóor na bu dal léegi oh Eumeu Sène dóor na ko arrêt de droit bu dal Bour Sine garde bi daa baissé te garde bu baissé baaxul ndeysaan Bour Sine seen Sène junior ndeysaan jërëjëf Demba Thiam kontaan naa sama xol sedd na ci yow Bour Sine Eumeu Sène Junior ña ngay xeex Bour Sine daw na ko plaqué wicc ko dóor na ña ngay xeexaat déet waay awo ñaari xale yaa ngay xeex ndeysaan peere nga ca kaw nee na waaye wallahi walu teel la ku ñëw ci tudd ba ngay yam kuy wax dóoral ci biti nga koy waxee ku naan songal ci biti ngay wax am na ku naaj am na ku naaj sëñ Bas su ma la war nga koo gëm maay vaar ama seen si ñëw toj na arbitre bi bu ko gisee atte ama seen a ngay naaj waaw waaw arbitre bi gisu ama seen gémmiñ gaa ngay naaj xonq ne cur waaye yeyut guro waaw sëñ Bas. jiili jiili Eumeu Sène Junior na boo xoole jël na ñaari yoon jël yoo xam ne jël ba baax na mais daa génnaat. te xeex xeex gala jaa ngay dag xeex bi da koy épuisé gis nga. ma ngay xeex buur siin jëlagut mais bu buur siin jëlee combat bi mën naa jeex. gis nga Eumeu Sène sonn na daw na jël tànk ba mbaadu daanu deet buur siin la nga maye bari na. lan ko may bëri na daanu na Eumeu Sène Junior daan na Bour Sine Eumeu Sène Junior na Bour ndam sëñ Bas